internautes sans limite TV nuyu nañu leen bu baax di leen ziar amaat mbégte jàkkaarloowaat ak yéen comme ni ñu leen koy defalee chaque jour bu actualité amee dañuy dem seeti ñi nga xam xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu wu nu mel ñu daal di waxtaan ak ñoom daal di leen di diglu ndax seen waxkat sénégalais yi dañu koy bàyyi xel ma daal di dalal oustaz Makhtar saar ku ne xam na ko ci li nga xam ne lay yëngu muy taxawaayam ak pas-pas bi mu am ci diine l'islam ma koy nuyu nag di ko ziar di ko bàyyi ak mu nuyoog internautes sans limite TV. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Mhm. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Mhm. waa kay Adja ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax di nuyu mboolem ñi déglu ak seetaan ak fu ñu mën ci nekk. Mhm. ci biir réew mi ak ci bitti réew. ñu ngi jaajëfal bu baax itam ci disponibilité bi oustaz bëggoon nañu xam tey jullit dëgg lan mooy nekk taxawaayam ci ci dëkk bi nga xam ne fa la yeewoo taxawaayu jullit dëgg naka la la war a mel nga résumé ñu ko. waaw taxawaayu jullit ci tënk rek mën nañ koo tontoo xadiisu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu doon wax ni mhm. man lam yahtam bi umuuril muslimiina falaysa minhum mhm. képp ku doon ku dul yittewoo mbiru jullit ñi bokkoo ci ñoom mhm. réew mu mel ne Sénégal nag majorité bi nekk ay jullit kon li population bi di dund ku mu soxalut nga ne sa yëpp bopp doo nga la ñor ak sa njaboot ak sa entourage euh, dëgg-dëgg jullit nekkul ci yow dëgg la waaye dëgg dëgg jullit bu nekkee ci yow lépp loo xam ne nii société bi ñu ngi koy dund. Mm-hmm. moo xam métit la tiis la jafe-jafe la lépp nga bokk ko ak ñoom. Mm-hmm. loolu màndarga muy wane na yow jullit nga. Mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam misaal na ko feneen ne misaalu jullit ñi ci seen soppante ak ci seen bëggante. ka masalil jasadil waaxid dafa mel ne benn jëm jenn jëm. mu ne jenn jëmm nag bu ci benn cër dee métti yaram wi yëpp moo koy yëgandoo bi saari wal xumaa mhm. bu bopp dee métti guddi gi yaram bi day tàng nit ñàkk nelaw mhm. bu bañ dee guddi gi yaram mën na tàng nit ñàkk nelaw mhm. bu biir dee métti noonu luy métti ci yaram bi yaram bi yëpp ni ñu koy yëgandoo nee na ñi noonu lañ war a mel ci takkatoo kon ci tënk lépp lu nit ñi di dund yow war nga ko dundandoo ak ñoom. loolu mhm. mooy màndargam lislaam mhm. ci ràbbale gi mu ràbbale ngir ñëpp nekk benn. Mhm. Hmm. premièrement dañuy ñëw ci li nga xam ne moo waral coow li ndax dafa am suñu benn mbokku acteur boo xamante ne dafa daal di wàññeeku suñu borom moom ko am ñu jóg ñu ne waruñu ko ñaanal en tant que jullit parce que borom bi subhanahu wa taala loolu la wax. am ñu dem contredire loolu te ñu nekk ay jullit am itam mu dem ba am ci polémique ci biir Facebook beeg réseau yi lan nga ñu mën a indi leeral ci loolu. waaw ñu ci indi leeral mooy lislaam moom. Mhm. terewul ñu jëflante ku nu bokkalul diine. Mhm. sunu borom mi ngi wax ci suuratul mumtahana laa yanhaakumu llaahu ani lladina lam yuqaatilukum fi ddiini mhm. walam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin mhm. terewuma leen moos ngeen ne kii kat bokkuñu diine mhm. bokkuñu lu nu ngeen jëflante ak moom mhm. na ngeen jëflante ñoom jëflante bu rafet maandu jëme ci ñoom yàlla bëgg na ci maandu maandu nag léeg-léeg wolof yi ñu déggul wolof duñ ko comprendre dañuy yaakaar ne maandu mooy mooy njàmbure njàmbure la ñuy jaawaleeg maandu mm-hmm. njàmbure mooy nga sa bopp ci nit ki mm-hmm. muy def nga bañ ca wax bañ caa nekk bañ a nangam nangam loolu mooy njàmbure d'accord mais maandu mooy nga euh, jàppee nit ki ni nga jàppee sa bopp mm-hmm. lay àqam ci yow nga jox ko ko bañ caa fenn dara loolu mooy maandu jëflante boobu bi ci dul jullit di dund lislaam terewul nga jëflanteeg moom mm-hmm. ñi ahlul kitaab nga xam ne dañoo am téere mm-hmm. muy yahudi ak nasaraan yi mm-hmm. sunu borom mi ngi wax ne seen ñam dagan na ñeel leen wa taamu ahlul kitaabi xillun lakum wa taamukum xillun lahum su ngeen toggee man ngeen a yàkkal ahlul kitaab ñoom it buñ toggee mën nañ leen a yàkkal feeg liñ leen di jox mi ngi nekk loo xam ne seen diina terew ko boobaa loolu mën ngeen ko jëflanteeg ñoom. Mhm. imaamu Malik nga xam ne Sénégal ak fu bari ci Afrique ñu ngi tënk ko ci njërëm. Mhm. ci laaya jooju la jëlee ne ki nga xam ne ahlul kitaab la bokk. Mhm. naaw suñ borom nee na seen ñam dagan na kon seen rendi tamit dagan na ñaal ndax seen ñam seen rendi da ciy duggaale. d'accord ahlul kitaab bi bu rendee xar jox la. te ba muy rendi tuddul turu yonentam. mais dafa rendi noonu doonte tuddul dara. ndax suñ ko ci yow jullit bi la wax ne li muy rendiku ci tuddee boo ci tuddul turu yàlla wala nga tudd ci leneen kenn mënu ko lekk. Mm, yow it lañu la ñu façon bi ngay rendee mm-hmm. waaye moom ahlu kitaab bu rendee ci machine wala mu rendee ci leneen. Mm-hmm. loolu yow nekkatul sart ñaxal la. d'accord loolu ci tënk leneen la. Mm-hmm. mais li ma bëgg a wax foofu mooy sunu borom mayee na jëflante ci wàllu lekk. jëflanteeg ñoom ba ci wàllu sëy. wàllu sëy gi. Euh, ki dul jullit mm, te nekk ahlul kitaab mhm. ahlul kitaab mhm. ahlul kitaab mooy chrétien bi wala juif bi jullit bu góor mën na takk seen jigéen d'accord mais contraire bi mënul am ñuy ñaawlu ne waruñ leen a ñaanal lu tax ñu koy wax lislaam nee na waruñ ñoo takk ñun suñuy jigéen d'accord léegi yow bu fekkee nee nga ñun lépp a yem ñun ñëpp benn lañu mhm. kon léegi gannaaw ñëpp a yem ñu faatoo mën nga leen a ñaanal léegi kon sa doom ju jigéen ji bu ko ñooñu bëggee demal nga may leen ko. Mm-hmm. waaw léegi lan moo tax sa doom ju jigéen ji yow mënoo koo may ku dul jullit. Mm-hmm. ba ku dul jullit bu ko bëggee da nga koy tuubloo. Mm-hmm. lan moo tax noo ko koo may nga ne sama diine moo ko tere. léegi tere boobu nga respecté ko beneen tere bi nga ne noonu mënuma koo respecté. ndax maslaha ak fi àdduna bi toll. bu dee maslaha dong la ak fa àdduna bi toll kon nañ jël règle yëpp ñu éliminer léegi yow mi nga xam ne yow yaay jigéenu jullit bu la ku dul jullit bëggee demal nga sëy ak moom mm-hmm. euh, ni nga xamee ne nii euh, noonu la kii jullit mën a dem takk ki nga xam ne mooy seen jigéen lan moo tax lislaam maye ñun ñu takk seen jigéen mm-hmm. mooy ñun dañoo gëm seen yenent mm-hmm. noonu dëgg la dañoo gëm yenent yëpp gannaaw dañoo gëm yenent yëpp nag moo tax ñu mën a takk ñoom seen jigéen ñoom li tax mënuñoo takk suñuy jigéen mooy dañoo gëmul suñu yeneen. d'accord. ñu ne leen balaa ñu leen a may suñu jigéen gëm leen suñu yeneen te sart boobu rek lañ leen tegal. d'accord. Hmm, loolu simple la. ok léegi ñi nga xamante ne woon. ci ñaar yooyu noonu leen ba léegi tëjul bunt bi. ok. tëjul bunt bi ba ci buy dund. Mhm. nga ñaanal ko yàlla. Mhm. ñaanal ko yàlla ngir mu wér. Mhm. ñaanal ko yàlla ngir mu gudd ñaanal ko mhm. yàlla ngir mu yokk ñaanal ko yàlla ngir mu mhm. réussite. loolu lislaam carewu ko benn yoon. yeneen ci bi am na benn yahud bu ko mos a bu ko bu ko mos meew. jox ko fataada moo ko nette. Ibn Abi Shayba moo ko génnee jëm ak mu ne dafa rattal yeneen ci bi gëléem ko jox meew mi yeneen ti bi ñaanal ko ñaanal mhm. yahud bi ci mhm. ne allahuma jëmmilhu yow yàlla yàlla nga ko rafet mhm. yàlla nga ko may taar ba ko ko ñaanalee ci saa rek la waa ji tàmbalee soppeeku kawar gi ñuul kukk mu tàmbalee am taar hmm? beneen yahud ñëw na ci yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam ne ba moo ko nettali yonent bi sallallahu la wa sallam ne ko aksara allahu maalek yal na yàlla bëril sa alal mhm. wa waladaka yal na yàlla may la njaboot gu bari mhm. wa asaxa jismaka yal na yàlla wéral sa yaram mhm. ataala umraka yal na yàlla guddal sa fan foofu la yonent bi yam d'accord kon lépp lu jëm ci wàllu àdduna lislaam terewul a nga ñaanal ko ku dul jullit lan la la lislaam tere mooy kii gëmul sab yonent bu faatoo dugg bàmmeel dañ koy laaj sab yenent ndax gëmoon nga ko am déet mhm. képp ku faatu gannaaw bi yenent yàlla insa weesoo yenent bi moo ci topp mhm. boo duggee bàmmeel danañ la laaj ndax gëmoon nga yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa am déet mhm. laaj laaj ci bàmmeel maa kitaabuka wa maa diinuka wa nabiyuka wa maa xiblatuka laaj yooyu ñu leen laaj ci bàmmeel lu doon sa téere lu doon sa yenent lu doon sa diine yooyu noonu ñu lay laaj ci biir bàmmeel mhm. mais ki nga xam ne bi muy dund amul fenn ko foo ko mën a seedeel ne nangu na yonent ak yonent bi mhm. dañ ne la bu faatoo maandul ci ay mbiram ngir di ko ñaanal suñu boroom d'accord bàyyi kook ñam bokkaloon lanu gëm ñoom ñu ñaanal ko ci lanu gëm mhm. lii wax dëgg fa yàlla lu simple la ku la may ne jëflante la kii bi muy dund lépp terewuñ la ko nga jëflante ko moom lu dul lu yàlla xaraama ñaanal ko loo ko bëgg ñaanal buy dund mhm. bu faatoo ñu ne la maandu ci ku la may juróom-ñeenti téeméer nag xaj na téeméer nga war ko muñ mhm. tamit dëgg oustaz euh, rafet na kàddu yi dégg nañu ko euh, leer na tamit dañu buggoon a xam seen diggante ak ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Mouhamed Cissé ndax gis nañ kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko démb ñëpp di ko ñaawlu mu nekk kàddu yoo xam ne dafa sax tiital ñu bari ñu gis ne yow itam démb ca suba ca tribunal yaa ngi demoon foofu taxaw ca bunt ba doon wax ak taskatu xabaar yi ñu buggoon xam ba nga déggee kàdd yooyu naka nga ko réagir ak kàddu yi nga xam ne itam yëkkati woon na ko ba mu indi lii yépp tey. waaw xam nga de moom daa toll ci wax ñun nag ñu ngi toll ci jëf. Mm-hmm. Euh, Serigne Cheikh Tidiane Thioune moo doon tagg Serigne Babacar Sy ne ko aji jëf waxtu doon jikkoom. Mm-hmm. aji jëf wax du doon jikko Maxtaar Sarr damay wax ne sama philosophie dund wax jooju daf cee bokk. Mm-hmm. ak waxu Serigne Cheikh Tidiane ci almatum jëm waxoon ne bari pexe saf yàllaa ko gën. Mm-hmm. ñaar yi dafa bokk man sama philosophie dund. Mm-hmm. mooy damay préféré jëf ji euh, ëpp solo wax ji. damay préféré tamit saf nit ñi saf yàlla gënal ma ko. moo tax bu mbir yi tollee fii mu toll nii daanaka wax ji jaratul ñu bari. wax na la mu wax la mu waxoon ñu naan sotti bu mujj bi kàddu yu ñaaw defe naa kàddu yu ñaaw moom tul wax bu rawul te mu waxoon. Mm-hmm. bu dee ñun suñ jëmm bopp yi la man ku ma xam-xam ne man damaa tul ay saaga. Mm-hmm. dama koo tul. Mm-hmm. ndax 2006 daa nekk ci média di wax ko fii mu toll nii loolu du benn fan du ñaari. dëgg la. Omar Sankharé bi mu fi bindee livre am mu bindoon wax ci alquranul karim ca ña nekkoon ca digg combat ba bokk. dëgg la. engagement ci wàllu diine bi ci Ahmed Cissé mii la tàmbalee ak ci ñuy wax jëme ci alxuraanul karim mhm. li tax loolu baax a fàttali mooy dafa am benn benn donte bariwul. Mhm. mais baax na leeral ko rek ngir ñenn ñu noppalu. dëgg la. mooy yaakaar ne kii kat daf la wax wax ju ñaaw moo tax nga génn di wax ci moom walla nga ne danga koy def nii. alors ko diine baa la soxal. Mhm. dëgg la. man dèjà la mu la mu njëkkoon wax ci man ba fi may waxee yow ni dégguma mhm. ay nit ñoo may nettali ne waxoon na ci yow lii lii lii man leen ah man de loolu dégguma ko waaye li ma wax ci alxuraan moom dégg na ko mhm. man lu ma ñorul yitteelu ma du ko toppatoo du ko déglu la su ma yitteelee nag ma war ci engagé wu danaa dem déglu ji la mu wax ak lu ma ko waxee mhm. bu fekkoon ne xamul kuy Maxtaar Sarr mu mosul tudd sama tur mu nga dëkk ca digg Londres la dëkk wax wax ju mel nii ci alxuraan ak yeneen bi danaa jug dal ci kaw. Mm-hmm. Charlie Hebdo ba fa la fa xew xewee président Macky Sall mi dem fa ca ña gënoon a engagé wu ci dénoncé président Macky Sall ci laa bokkoon. Mm-hmm. def naa ci émission fu ne ñaawlu naa ko dénoncé naa ko. Mm-hmm. ak képp ku fa demoon naan je suis safi. mbirum franc yi jaar nañu fi ca ñu nekkoon ñu jiite collectif non à la franc-maçonnerie à te ña doon coordonné collectif boobu laa bokk. Mhm. ànd sàmm jikko yi juddu ci ginnaaw bi. Mhm. combat yi ci mën yëpp i artistes yoo xam ne sol col gu ay film yoo xam ne yu la ay théâtre yu ñuy def lu bon. Mhm. yañ ca doon déposé ak marche yañ ca doon amal ak ñaxtu lu ci nekk ca digg laa nekkoon. ci euh, El Cheikhoum barki mii nga xam ne nii ñëpp xam nañ ni mu jugee woon. man maa volonté wu jug dal ci kawam. ñu mhm. menacé ma lu ne ñu def ko. Mhm. reculé wu ma dellu ma ginnaaw. dëgg la. kon moom dafa tuuti loo ci ñi nga xam ne xam nga ko song franc-maçon yi ak seen doole yi ñu am. Mhm. ñun bi ñuy song franc-maçon yi grand toriar bu France dafa bind communiqué di ñu menacé. ku xam grand toriar bu France ak ni ñu amee puissance ci àdduna bi. ñun benn kuréel boo xam ne man ak lu mat fukki nit ëpp ñu ko. ñoo yëngal Grand Montréal bu France ba ñuy bind communiqué di ñu menacé di wax ak Sénégal pour mu jël matuwaay ci ñun. Mm-hmm. keroog jour bi ñuy jot seen communiqué moo tombé dañuy ñuy daje fële ci mosquée UNICEF. Mm-hmm. di dénoncer seen jëf yu bon ak seen jëf yu ñaaw dañoo lire seen communiqué bi ba noppi soog di leen d'accord. wëyal sunu combat. Mm-hmm. lii baax na nga fàttali ko ngir ñu dabee nga xam ne dañoo dégg xëy na turu Maxtaar Sarr ci lu bees. ne porté na plainte Ahmed Cissé ci turu aar daara te yëgul la dëgg la. aar daara bi nga xam ne moom moo porté plainte Ahmed Cissé aar daara lan moo tax mu judd mooy gouvernement du Sénégal moo jugoon jël ay matuwaay. Mhm. ne zéro enfant dans la rue. di mhm. Mhm. ci li nga xam ne nii moom mooy euh, mbas mi fi amoon. am ten benn agenda buñ ñu gën jawri la ngir tas yenn daara yi. dañu yëg ne lii programme la boo xam ne avant Covid bi la ci lañ jub taxaw. def tournée ci Sénégal dem seeti xalifa yëpp. Mhm. Euh, def sunu collectif tuddee ko aar daar dëgg la. ngir aar daara yooyu ak sëriñu daara yooyu noonu de aar daara boobu moom moo ko porté plainte mais nekkul Makhtar Sarr en tant que nag maa nekk coordinateur. d'accord. Euh, dafa am ay téeméeri téeméeri sëriñu daara yu nekk ci suñ ginnaaw ay junni junni salaawa. Mhm. ak yeneen i kuréel ay dizaine kuréel yoo xam ne walla vingtaine. Mhm. yoo xam ne ñoom ñoo dajaloo nekk ci li nga xam ne moom mooy collectif. loolu gannaaw fàttali googu nag. Mhm. Mhm. la mu wax ci alquranul karim di ko méngale taaxuraan. Mhm. di wax ne waxu suñ borom am na ci loo xam ne du dëkk. mais ay théâtre la comme kuy théâtre rek. lii moo nu yëngal moo nu tax a jóg. lii moo tax it ñu porté ko plainte. gannaaw plainte bi nag bu defee vidéo saaganu nanu saaga baay saaganu maam saaganu maam mataar loolu duñ ko gën yëngal mhm. ndax ku saaga yàlla sa boroom bu la saagaa bu la méttee gëmoo sa boroom mhm. ñun lañu doon metti metti nanu mhm. li wolof di wax ku war ci gannaaw ñay ba wàcc gannaaw loo waraat mu tuuti moom mënatunoo wax lu nu yëngal ndax li mu wax mu yëngal nu loolu fa yëngal ba toll leneen mënuñu faa toll waa li ci am solo mooy danañ wëyal li nga xam ne nii moom mooy suñu plainte. Mm-hmm. suba ci jeudi bi incha allahu taala fa ñu déposé plainte am na ci ñenn ci ñoom woo nañ ñu. Mm-hmm. ñu war fa dem ñu déglu ñu. Mm-hmm. war a yóbbaale éléments yi ñuy yóbbaale. incha allah la ca war a topp ñu toftal ko ci bu soobee. mais comme que moom nekkul nekkul Sénégal est-ce que plainte bi day nekk international wala dina dootul amati possibilité pour dugg ci réew mi. ñun daal li ñuy mën a wax mooy danañ topp suñu plainte. bañ ko déposé ñoom ñooy xam après ñu ñuy topp mi ngi ci réew mi nekkul bitim réew. Mhm. ñun loolu ñu yor wàllu yoonu réew mi ñoom ñoo koy saytu. Mhm. l'essentiel moom Ahmed se moom fii ci Sénégal du si am jàmm. d'accord gouvernement bi dana jub mu faj ko wala ñun danañ ko fajal suñu bopp. d'accord dañu nangu mu nekk ci biir réew mi lëmbe ko. Mhm. di wax lu ko neex di attaqué suñu pas-pas ñu toog di ko seetaan. Mm-hmm. loolu moom jeex na. Mm-hmm. route boobu noonu bareel nañ ko ko dootuñ ko ko mayti. Mm-hmm. te gisagul dara nag ñun ñii rek la gis li ma jokkool ci ay kilifa wax ak ñoom. tey gouvernement bi bu ko fajul ba ñun ñooñu ñëpp ñu jug rayaas yi. yow yeneen i mbir la te ñu fa yegg. dëgg moo tax bu génnee réew mi mu dem feneen ku dul réew mi moom moo ci ñun li war a def danañ ko dem ndax moom du cible bi moom kese. d'accord ah da ngeen cee boole ku xalaatati wax wax ju mel nii ñoom ñëpp suñuy siibul la. d'accord du ci moom kese mais képp ku jug ngir euh, di di nga diine beeg lépp ci nga bokk. ah bien mhm. fi ñuy daanalee mooy oustaz da ngeen di sàmm jikko yi sàmm colin gi. ci taaru l'islam rek ngeen di dox gis nañ benn chanteuse daal di def benn apparition wante la mu ca sol nekk na sur la toile parce que gis nañ ni euh, nga baal ma ci kàddu gi yaramam bi yëpp ñu ngi woon ci biti yooyu itam yan décision ngeen ci war a jël parce que réewum Sénégal lislaam lañu ko xamee ak diini ji. Mm-hmm. waaye daal yu mel noonu yàgg na fee xew. Mm-hmm. ànd sàmm jikko yi nag dafa tabaxoo bu dee kuréel boobu la moom dafa tabaxoo noo xam ne léeg-léeg ñu bëri di leen interpréter ànd sàmm jikko yi fekk ànd sàmm jikko yi dafa regroupé lu mat téeméeri kuréel ak lu topp. d'accord. aar daara benn kuréel la ci biir ànd sàmm jikko yi. Mm-hmm. Euh, yu mel noonu lu mel ne jamra. Mm-hmm. jamra benn kuréel la ci biir ànd sàmm jikko yi. Mm-hmm. am na comité défense valeur valeur morale ñaareel ñu jëm ci yi nga wax nii. ci ay nit ñu kutteeku ci filmu wala ñu kutteeku ci public ak yu mel noonu. Mhm. loolu porté nañ ci plainte ay nit ñu dul jeex ñu arrêté leen ci teg leen ay daan. Mhm. loolu xëy na bu ñu xamee lan la danañ ko signalé ñoom sëñ Adama bu. ñi mhm. nga xam ne moo jiite comité défense valeur morale morale incha allah. incha allah lan ngay tàggatoo oustaz ak looy baaxee sénégalais yi. waaw di leen sant di leen gërëm di wax sénégalais yëpp nañu mànkoo. ci xeex lu mel nii tam mm-hmm. ñu éviter buñ jógee di xeex lu mel nii ñu ciy dugal yeneen yu ci bokkul. Mm-hmm. lan laa tuddee dugal ci leneen lu ci bokkul. mooy mm-hmm. yow ñi ngi jub ne ñi ngi xeex ci waa wax ju bon ji ñëpp nangu ne lu bon la. nga naan du moom kese. loolu ci liy woyofal lépp lu bon la ci réew mi. Euh, bu fekkee ne Maftar Sarr jug na ak waa Aar Daara porte plainte Ahmed Cissé. bi mhm. dafa wax lu bon li ci alxuraan nga am na keneen ku wax lu mel noonu ci alxuraan wala ci sëriñam. Mhm. yow demal nga porte ji kooku plainte da bàyyi ñu ñu ñu wéyal suñu plainte bi. Mhm. loolu message la boo xam ne nii képp ku ngeen dégg mu naan du moom kese. ne leen ko yow ñii ñu ngi réglé kii yow demal nga réglé kooku yow. waaye dafa yomb lool nga toog ci sa ginnaaw téléphone ay nit dagg seen i yitte di dajee ci ay réunion di paas di dem joxoo leen dërëm. Mhm. ñoo volonté wu. ngir seen pas-pas. li mhm. ñuy xeex yow lañ koy xeexal. Mhm. nga leen di découragé loo naan waaw buñ fekkee diw rek lañ ñemee waaw lu tax keneen waxoon na lii ak laata defuñ nangam nangam. yow góor nga ñun ñuy xeex góor lañu da ngay takk tubéy ñuy takk tubéy demal nga xeex la ñu ñu xeex lii bu ñu xeexee lii nga xeexlee. léegi lépp jeex. waaye nañu moytandiku yow demoo dikkoo puusoo paasoo. Mhm. nit ñi di xeex nga toog fi nga toog naan du moom kese. Mhm. ak nañ pelante ñeneen ñi. Mhm. pelante xam nga fi koy defee xam nga ni ñu koy bindee. ñun pelante nañ ci demal nga bind sa pelante yow nga pelante kooku ngay wax. ndax ñun mënuñoo dajal fépp. dëgg la. message boobu daal laa bëggoon a dénk ñi nga xam ne ñooy faral di wax wax yooyu ngir ñu bàyyi ko xel. te ñi nga xam ne nii ñoom ñooy ñaawlu lu mel nii ñu gën a taxaw di ko ñaanu ñaawlu ndax ku xam àdduna de fi mu toll menaces yi lii lu ndaw la. Mhm. tey ay nit ñi ngi toog ci Europe di lakk ay kaamilu alxuraanul karim. Mhm. te loolu fit yu leen ko may bu ñu toogee Sénégal di seetaan loolu dafay law. dëgg la. li tax nag lu mel noonu du am mooy lu mel nii bu amee ñëpp takkatoo taxaw. Mhm. ba keneen dootu ko xalaatati ba di ko wax wala mu koy def. dëgg la. loolu laa doon dénkaane di ko dénk sama bopp. Mm-hmm. salaamaaleykum wa wa barakaatu. salaam wa rahmatullahi wa barakaatu oustaz ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi di la jaajëfal itam ñu ngi sant gërëm yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy suivre à travers Sans Limites TV merci beaucoup à la prochaine.